atiya nag. saayan saayan. rab bu ne. nee rab bu ne. woo ko ci turam. woo ko ci turam. rab bu ne. rab bu ne. Ibrahima woo ko ci turam. Ibrahima woo ko ci turam. yax bee. yax bee fekk yee yax. fekk bee yax suux bee. suux bee fekk yee suux. fekk yee suux dunq yi. yi suux yi. dunq yi dunq yi fekk yee dunq. fekk yee dunq ñuy defante ni rek. ñuy defante ni rek. daa sàmbalante. déet di assembalante. dekki. dekki pët pëti. pët pëti wut si ko. wut si ko mu ne ko yéen a dekkale way dee. mu ne ko nii laay dekkale way dee. mu ne ko xanaa yaay waajal. mu ne ko ah, xam naa ni yaay waajal. moo tax mu ne ay na nam roosu. moo tax mu ne ay na nam roosu. وكنعان وكنعان أنا كنعان أنا كنعان هو الملك الأرض من ملك الأرض أنا نمو منسوف أنا نمو منسوف ووالله ووالله دد نجو دد نجو وعسل وعسل صلي كنا نجو صلي كنا نجو سيعيد الله لكل منهم نا سيعيد الله لكل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل نا وسيجزي فاعلا ما قد فعل ku ci nekk la nga doon jëf kenn ku ne la nga doon naa la ko delloo naa la ko delloo bu deew yiw bu deew yiw ma dóor la ko ma dóor la ko bu dee safaari ma dóor la ko ma dóor la ko moo tax jëf jël nee moo tax jëf jël wax bu ko gën a dëggu amul wax bu ko gën a dëggu amul jëf jëf jël jël man amila saalihan nee man amila saalihan fa li nafsi fa li nafsi wa man asaa wa man asaa fa alayha fa alayha man amila saalihan nee man amila saalihan am na benn géwél bu neex. ne am na benn géwél bu neex. taalibe sëñ Moustapha la. ne taalibe sëñ Moustapha. di xaritam di nu réeloo fu nu toll. di xaritam di nu réeloo fu nu toll. mu ne man amila saalihan. mu ne man amila saalihan. fali nafsi. fali nafsi mu ne fali boppam. ne mu ne fali boppam. gis nga yomal xiyaam. ne gis nga jëf yi day nekk ci buntu bàmmeel yi. ne nekk ci buntu bàmmeel. ku ne la nga jëfoon. ne ku ne la nga jëfoon. bu dee lu baax. bu dee baax ma nga ma lay nekk. mu nga lay nekk. bu dee lu bon. bu dee lu ma nga lay nekk. mu nga lay bu ñu walee bufta ba. ne bu ñu walee bufta ba. ba pullu pullu ja. ba pullu ja. ku am jëf ju baax. baax. day nekk daaba. day nekk daaba. ni la waral ni la waral. ah xam nga maa. xam nga maa. xamoo waaye man xam naa la. nee nga mun a xamoo ma waaye man xam naa la. sa jëf ju baax da nga doon def ci àdduna. sa jëf ju baax da nga doon def ci àdduna. moom la ma yàlla soppee daaba. moom la ma yàlla soppee daaba. waral waral ba penc ma. ba penc ma. bu dee jëf ju bon. nee bu dee jëf ju bon. boo nee bërëb. boo nee bërëb mu dóor sa ndong. mu dóor sa ndong. dóor dóor sëggal sëggal. foo ma xamee waay. foo ma xamee waay. yaxmiloona. nee yaxmiloona. awzaaruhum. awzaaruhum yawmal qiyaamati yéen koy jeyang jeyang di. nee na yéen koy jeyang jeyang. yaa yéenu kat. yaa yéenu kat. di jeyang jeyang. di jeyang jeyang. da lay kon nag ay na man saado. nee kon nag ay na man saadu. wa saadu. wa saadu. wa banaw. wa banaw halakal kullu. halakal kullu. fa lam yuxnil xulal. fa lam yuxnil xulal. ay na namrodun. ay na namrodun. wa kanaan. wa kanaan. wa man. wa man malakul arda. malakul arda. wa wallaa. wa wallaa. wa azal. wa azal. sa yuidullah. nee sa yuidullah. kullun minhum. kullun minhum. wa sa yajzi. sa yajzi. failan. failan. maa qad faal. maa qad faal. mu ne nag. mu ne nag. ci ci ñu nay ñi. ci ñu nay ñi. am seen alal te duñ ci def ci dara ci wàllu yàlla. am seen alal te duñ ci def dara ci wàllu yàlla. ayu kafin lam tufit mi maa tufat. nee ayu kafin lam tufit mi maa tufat. faramaahu llahu minhu bi salal. nee faramaahu llahu minhu bi salal. bépp tënk boo xam ni. bépp tënk boo xam ni. tàllaloo ko. tàllaloo ko jëme ko ci wàllu yàlla. jëme ko ci wàllu yàlla. jëme ko say bokk. jëme ko say bokk. sarxewoo. sarxewoo nee na tënk woowee. nee tënk woowee. yàlla làggi. nee nee nee na tënk loola yàlla làggi kon fa tabarakallahu nee kon fa tabarakallahu lii rek am njariñ nee lii rek am njariñ moo tax nun nee moo tax nun kenn du nu nawee dara kenn du nu nawee dara lu dul diine lu dul diine yàlla yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla xam-xam xam-xam ak nii ngeen def rek ak nii ngeen def rek buntu kër bi rek fi la buntu kër bi rek fi la bu mu dagati mukk bu mu dagati mukk fi la nee fi la ndax gis nga. ñaa ndax gis nga. wala sa kullu mu dawarin. ñaa wala sa kullu mu dawarin. kàq. kàq. téere nee nañu. téere nee nañu du lu wëndeelu rek. du lu wëndeelu rek di bong bong di bong bong. bari na xale yu góor. ñaa bari na xale yu góor. ak ñuy woote diine. ak ñuy woote diine. waaye sellal ga la ñu wax. waaye sellal ga la ñu wax. julli waxtu. julli waxtu. wasifa wasifa dem malaanu jàkk dem malaanu jàkk woor woor nit sa diggal sëriñ nit sa diggal sëriñ yéen a nekk ci dëgg ah yéen a nekk ci dëgg ah. ku newul ci tarsu na yàqu maa ko wax maa ko wax kon lii ngeen nekk nee kon ngeen nekk nii fi la fi la buntu kër gi fi la ah. buntu kër gi fi la na dëgër na maa ngi waxaat xisa bi maa ngi waxaat xisa tey sax duma wax dara tey sax duma wax dara yonent yàlla Ibrahima. nee yàlla Ibrahima. Ismaayla jabar ja mu dëkk am. nee Ismaayla jabar ja mu Ibrahima dafa toog jëmmi jamono. Ibrahima dafa toog jëmmi jamono. mag ñi daan nañ ko def. mag ñi daan nañ ko def. seet seen doom yi. seet seen doom yi. nañ la ñu toog ci seen kër yi. nan la ñuy toog seen kër yi. bu dee lu jaadu. bu dee ñu bakko ca. ñu bakko ca bu jaaduwul. bu jaaduwul ñu yedd la. ñu yedd la ñu yee nuyoo. nee mu ak ci nuyoo. moom Ibrahim. moom Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim. moom la tuddoon. moom la tuddoon Ibrahim. waaw moom Ismaïla. moom moom Ismaïla. ak Mishkaat. ak Mishkaat. ak sundusi ak sundusi ak istabrak ak istabrak ay suryaani yu lañu ay suryaani yu lañu ak ak iilu ak iilu ñu arabal ko nag. nee ñu arabal ko nag. ni Ibrahima. ni Ibrahima. Moussa itam. Moussa itam. Suryaan yu la yu la ñu arabal ko. ñu arabal ko xam nga Moussa. mu mooy firi ndox. mu mooy firi ndox. ci Suryaan yu. ci Suryaan yu. saa di firi garab. saa di firi garab. fa Firawna nekkoon. fa ak jabaram. ak jabaram di ci diggante ndox ma. ca diggante ak garab ga. fa la ko gëqe. fa la ko gëqe. wax ne moom dëggoon. nee wax ne moom nekkoon. duggoon fa lañ ko gëqee. fa lañ ko gëqee mu daanu seen kanam. mu daanu seen kanam. ñu xool ko. ñu xool ko mu dib liir. mu dib liir rafet lool. rafet lool. mu. mu. muy firi garab. mooy firi garab saa. saa. mu mooy firi ndox. mu mooy firi ndox. saa di firi garab. saa di firi diggante ndox ak garab. te diggante ndox ak garab. fa lañ ko fare woon fa lañ ko fare woon. ñu arabal ko nag. ñu arabal ni Muusaa. ni Muusaa. def ko siin su wow. def ko siin su wow. bokkul ak Muusaa bi firi paaka. bokkul ak Muusaa bi firi paaka. a ah, Moussa dina fi di paak. ah Moussa. nee yu gudd yooyu. nee gis nga amoon na ci. nee Ibrahima Dieng amoon na ci. moom la daan woote sans papa. ma dem ah. ma dem ah. mu nuyu ko ba noppi. nee mu nuyu ko ba noppi. Ibrahima ñëw nag ci kër gi. Ibrahima ñëw nag ci kër gi. nuyoon teeg jabar jabar ja. jabari yont yàlla isa Moussa Ismaïla. jabari yont yàlla Ismaïla. Ismaïla itam. Ismaïla itam. amul tur. amul tur. ba ñaanug yàlla gannangoo. ba ñaanug yàlla gannangoo. ak baayam. ak baayam. ca ñàkk doom ja. ca ñàkk doom ja. ba mu juddoo. ba mu juddoo mu ne eskay. mu ne eskay. isma. isma déggal. déggal iilu. iilu yow yàlla. yow yàlla ñu ni Ismaïla. ñu ni Ismaïla. mu ne ko an sa borom kër. nee mu ne ko an sa borom kër. dafa génn de. mu ne ko ah, dafa génn de. bu gàtt kat dafa génn de. nee bu gàtt kat la ko génn de. fu mu jëm. fu mu jëm ah xaw ma ko nag. mu ne ko ah, xaw ma ko nag. kañ la ñëw. kañ la waxuma ko de. waxuma ko de. caractère ko rek. caractère ko rek. góor gi taxaw taxaw. nee góor gi taxaw taxaw. ba ci kanam baax na doom maa ngi dem. baax na quoi doom maa ngi dem. bu sa jëkkër ji ñëwee. bu nuyul ma ko. nuyul ma ko. nee ko buntu këram gi. nee ko buntu këram ko samp du fi. ko samp du na ko simpi. na ko simpi samp ko feneen. samp ko feneen. ba Ismaïla ñëwee. ba Ismaïla ñëwee. ni jabar ji waaw. ni jabar ji waaw. ndax kenn seet na ma fi waay. kenn seet na ma mu ne xanaa góor gu njaxlaf. mu ne ko xanaa góor gu njaxlaf. affaire. te bari waaye daal. maa ko collecteur ba mu dem. maa ko collecteur ba mu dem. kii ma gis. kii ma gis ku ko yaataloon. ku ko yaataloon fi lay nawet. fi lay nawet. ak li muy bari affaire. ak li muy bari affaire. mu ne xoolal sa kër gi sax kat. nee na nee na ma sa kër gi sax kat. xool na sa kër gi nee na fi nga kër gi. nee na fi nga ko samp ko feneen samp ah, mu Ibrahima Xalilullah. la fase. nee naa la fase. doo sama jabar. sama jabar fase naa la. sa bagage. jël sa bagage kër te génn sama mu am beneen jëmmi jamono. nee mu takk naabit. mu takk naabit. bu ngeen demee ci miimee mu nga fa. nee ngeen demee ca miimee mu nga fa. mu ñëw nag di di ko seet si nag. nee mu ñëw nag di ko seet. mu ñëwaat di seet si kër gi. nee mu ñëwaat nag di seet si kër naka la seet góor gi rek. nee na ko seet góor gi naka la ko séen. naka la ko séen ko rek. dogale ko rek sukk sukk. ah papa doxee nga naaj bi. ah papa mu ne ko waaw waaw doom ko waaw an sa borom kër. mu ne ko ana sa mu ne ko toogal léegi mu ñëw mu ne ko toogal léegi mu xam naa ne dafa rëbbi ko xam naa ne dafa rëbbi te ngoon lay ñëw te ngoon mu ne ko papa may ma rek mu ne ko papa may ma rek dem lal taatu basang taatu basang ge mu lal basang mu lal basang ci taatu garab gu sedd taatu garab njaral ko njaral ko enterré ko enterré ko toogloo ko toogloo ko mu dekki ba ngoon jot mu dekki ba ngoon jot ba kër gi sedd ba kër gi sedd mu ne ko doom maa ngi dem mu ne ko doom maa ngi dem bu sa jëkkër ñëwee nga nuyul ma ko bu sa ko te ni ko te ko buntu kër gi kat buntu kër gi kat ko samp fi mu ko samp fi la na dëgër na dëgër Ismaïla ñëw ne Ismaïla ñëw ko ndax kenn wutuma fi ne ko waaw ndax kenn wutuma fi mu ne ah kay mu ne ko ah kay góor gu rafet góor gu rafet ku yiw ku yiw kii ma gis kii ma gis bu dul yonent bu dul di waliyu di waliyu téye naa ko téye nag. téye naa ko téye nag. ndax naxal naa ko. ndax naxal naa ko. waaye dem na rek. waaye dem na rek. fàttali na nag la mu ko waxoon. fàttali na nag la mu ko waxoon. mu ne ko waaw. mu ne ko waaw ndax waxuma dara. ndax waxuma dara. mu ne. mu ne. Eh. Ah, ah kay nee na sa buntu kër gi kat fi nga ko samp fi la la dëgër muy kookoy sama baay muy Ibrahima Xalilullah nee naa la denc yaay sama jabar waaye gaa ñi fi la la dëgëraa fi la la dëgëraa dëgër mu mel ni gis nga sama jukki kii nga sama jukki bi. waat naa ci tarixa bi. waat naa ci tarixa bi. daanu naa xaal ci yéen ba. daanu naa xaal ci yéen ba. du ma ko jàng mi du ma ko jàng mu ngi nii. xanaa rek wan leen ni rek. xanaa rek wan leen ni rek. guddik tey gii daal. guddik tey gii daal. ku yàlla baaxee. ku yàlla baaxee. nga màggal si ko Tiwaawan. nga màggal si ko Tiwaawan. ci kanam Alaaji Malick. kanam Alaaji Malick. kanamu Babacar Sy. kanamu Babacar Sy. sama turandoo. sama turandoo. Alaaji Abdoul Aziz. Alaaji Abdoul Aziz. Alaaji Habib. Alaaji Habib. guddi gii fekk la Tiwaawan. guddi gii fekk la Tiwaawan. ci weeru koor wi ci weeru koor wi Muhammad Ramadanu Muhammad Ramadanu qalbu sërëti qalbu sërëti weeru koor mooy xolu at mi mooy xolu at mi suratu Yaasin suratu Yaasin te te xol ci xol te at te at dama ne xol bu yëwënee xol bu yëwënee yaram yëwën yaram yëwën weer yi bu yëwënee weer bu yëwënee sunu at yëwën nee sunu at yëwën mu ni weeru koor. mu ni weeru koor mooy xolu at mi. mooy xolu at mi surtout Yaasin. surtout Yaasin mooy xolu alxuraan. mooy xolu alxuraan waaye Tiwaawan. waaye Tiwaawan mooy xolu Sénégal. mooy xolu Sénégal xalifa nag. xalifa mooy xolu sëriñ si. mooy xolu sëriñ si. maa la ko wax de. nee maa la ko wax de. ku yàlla baaxe mani. nee ku yàlla baaxe mani. ba guddik tey gii. ba guddik tey gii. leetu xadri. leetu xadri da ngay guddi àjjuma. da daa tombé guddi àjjuma. c'est garaaw. ah nee c'est garaaw. c'est garaaw ah. nee c'est garaaw ah. te nag te nag lu yàlla xañ Moussa lu yàlla xañ Moussa defal ko nit simple defal ko nit simple war naa sant yàlla ah. war naa sant yàlla waat naa ni góor gi ma leen ko fay mais waat naa ni góor gi mën leen ko fay weer wi ni mu foore weer wi ni mu foore yonent yàlla Moussa daf ne yaa rabbi yonent yàlla Moussa daf ne yaa rabbi hal akramta ahadan hal akramta ahadan misla ma akramtani misla ma akramtani xaysu asmaatani kalaamaka. xaysu asmaatani kalaamaka. mu ne ko inna lii ibaadan. mu ne ko inna lii ibaadan. uxrijuhum fi axiri zaman. uxrijuhum fi axiri zaman. wa ukrimuhum bi chahri ramadan. wa ukrimuhum bi chahri ramadan. ana. ana akunu. akunu aqrabu. aqrabu ilayhi minka. minka ndax fa inni kallamtuka. ndax fa inni kallamtuka. te kat bayni wa baynaka. te kat bayni wa baynaka. sab'una alfa xijaabin. sab'una alfa xijaabin. idaa saamat. idaa saamat. ummatu muhammad. ummatu muhammad. wa bayadat shifaahuhum. wa bayadat shifaahuhum. wa abyadat. wa abyadat. shifaahuhum. shifaahuhum. wasfarat. wasfarat alwaanuhum. أرفع تلك الحجبة وقت الإفطار وقت الإفطار وقت الإفطار وقت الإفطار moo yàlla man Moussa. moo yàlla man Moussa. ndax ni nga ma terale. ndax ni nga ma terale. ci adduna. ci adduna ma dégg sa wax. ba ma dégg sa wax. ca jabalu toor. ca jabalu toor. moo. moo am na benn mbindeef. am na benn mbindeef. boo terale noonu. boo terale noonu. mu te mu jegele noonu. te mu jegele noonu. xam nga wa jabal tóor. nee na xam nga jabalul tóor. ba mu jógee ci Shuayb. ba mu jógee ci Shuayb. mu may ko ndoom sa. mu may ko ndoom sa. mu ñibbi. mu ñibbi min wi vingt. min wi vingt taw bi sóob. taw bi sóob taatu daxaar ga mu nekkoon. taatu daxaar ga mu nekkoon. di lox. di lox ak jabar ji. ak jabar ji mu seen jéenéer. mu seen jéenéer. dafa ni safara la. dafa ni safara la mu ni jabar ji. mu ni jabar ji nekk ma fi. nekk ma fi ma tibbi xal te ñëw. ma tibbi xal te ñëw. ndeka jabalu toor la ndeka jabalu toor la naka ma agsi rek naka ma agsi rek faxlan alayka ñu ni ko faxlan alayka innaka bil wadi al muqaddasi tuwi innaka bil wadi al muqaddasi tuwi innani ana allah innani ana allah la ilaha illa ana la ilaha illa ana faabudni faabudni sumil say dàll nee ni ko sumil say dàll fii kenn du fi sol dàll ah. fii kenn du fi sol dàll mu xeen xeenu mu xeen xeenu am lu ko ni mën a am lu ko ni mën a yàlla bu ñu jaamu amul buur bu ñu jaamu jaamu nga am njëriñ jaamu nga am njëriñ ñàkk jaamu ma jaamu ma mu ne ko rabbi arini ma ni mën a a gis a gis a a a a du garaaw. du bu doon lammaa. bu doon lammaa. du bu doon a bu doon alammaa. du garaaw. du garaaw bu doon alan. bu doon alan. du lan tëre lan tëre lan la. lan lan tëbiit ci attabayaan. ci attabayaan doo ma gis mukk. doo ma ci àdduna. ci àdduna. walakin unzur ila aljabali nee ni ko walakin unzur ila aljabali fa in istaqara makanahu fa in istaqara makanahu fa sawfa tareeni sawfa tareeni taxawal tuut rek taxawal tuut rek boo taxawee tuut boo taxawee tuut da nga gis lu bokk ci man di nga gis lu bokk ci man falamma tajalla rabbuhu nee falamma tajalla rabbuhu lil jabali lil jabali jaaloo dakkan jaaloo dakkan léegi ko faaru rek. nee leer daa ko faaru. waxara Moussa Saay xan. nee waxara Moussa Saay xan. waaw kuleer gay faaru. waaw kuleer gay faaru. nga perdal. nga perdal. boo gisoon jëmm nag. ah boo gisoon jëmm nag. moo tax dakkan jooju. nee moo tax dakkan jooju. ku ko firee pënd. bu ko firee pënd. ku ko firee pënd. ku ko ku ko firee pënd. daanu nga. daanu nga nee dakkan jooju. ku ko firee pënd daanu nga. falammaa tajallee. nee falammaa tajallee. rabbuhu. rabbuhu. ba nga xamee feeñu na ko borom ba. ba nga xamee feeñu na ko borom ba. nit jabali. nit jabali ñeel jël dojoo mu taxawoon. ñeel dojoo mu taxawoon. doju dafa tiit. ñeel doju dafa tiit. ñu tàcc xar. ñu tàcc xar benn ba. benn ba mooy uxut. mooy uxut benn ba. benn ba mooy sabir. mooy sabir benn ba mooy xiraa. mooy xiraa. jaaloo dakkan. nee jaaloo dakkan. jaaloo mujj nag Moussa. nee jaaloo mujj na Moussa. dakkan di aji yem ak suuf. dakkan di aji yem ak suuf. ndax pët dafa jëriw. ndax pët dafa jëriw. te Moussa nga fa. te Moussa nga fa. waxara Moussa saay xar. nee waxara Moussa saay xar. Moussa. Moussa am na ñeent fukki fan. am na ñeent fukki fan wax ju mu dégg. wax ju mu dégg wàccu. wàccu nga dox yàlla ju neex ja. ngir wax yàlla ju neex ja. ah ku toll ni yàlla wax ak yow. nee ku toll ni yàlla wax ak yow. wa maa tilka bi yaminika. wa maa tilka bi yaminika. yaa Muusa yaa Muusa. te tilka di lu sori. te tilka du li sori. isaara lu sori la. nee isaara lu sori la. ka tilka taalika. ka tilka taalika. wa tiika tayka. wa tiika tayka. wa diika daalika. wa diika daalika. wa diika dayka. wa diika dayka. mu ne ko maa tilka nag. nee mu ne ko maa tilka nag. te ne boobu mi ngi ko jege. te ne boobu mi ngi ko jege. màgg rek a tax. màgg rek a tax. wa maa tilka bi yaminika. wa maa tilka bi yaminika. ana loole la ko waroon a wax. ana loole la ko waroon a wax. mu ne ko ana lii. mu ne ko ana lii. uma tilka bi yaminika yaa Muusaa. uma tilka bi yaminika yaa Muusaa. lan moo nekk sa loxo. lan moo nekk sa loxo. moo ne ko nag ah, sama yar rek. mu ne mën na ko sama yar rek. waaye xaala. waaye xaala. hiya. hiya asaaya. asaaya atawakkaw. atawakkaw alayha. alayha wa ahushu. wa ahushu biha. biha ala ganami. waliya. waliya fiha. fiha maarib uxra. uxra wax ak yàlla dafa neex. nee wax ak yàlla dafa neex. mu bànneexu. mu bànneexu. xaala mu ni ko xaala mu ni ko hiya moom hiya moom asaaya asaaya sama wiyata sama wiyata atawakkaw atawakkaw dinaa sukkandiku dinaa sukkandiku bihaa bihaa ci yet ci yet wi ci yet wi wa arushu wa arushu may bàcc may bàcc moo tax boo ne wa arushu moo tax boo ne wa arushu sàmmkat boo gis sàmmkat boo gis am na yet woo xam ni am na yet woo xam bu demee ci garab bu demee ci garab te garab gi waddul te garab gi nga bàcc na mu bàcc garab gi wàcc garab gi wàcc jur gi lekk. nee jur gi lekk wa ahushu. wa ahushu may bàcc yet bi. nee may bàcc yet bi. ala ganami. ala ganami. moo nekk di waliya. moo nekk di waliya. ñeel na ma. ñeel na ma maaribun. maaribun. ay aajo. ay aajo uxraa. uxraa yeneen. yeneen matu ko. matu ko waaye wax ak yàlla dafa neex. waaye wax ak yàlla dafa neex. ba muy faatu. nee ba muy faatu. burtu ngeen la takk si. nee burtu ngeen la takk fii. ndax leeru yàlla. ndax leeru yàlla. mu ne ko nag. nee mu ne ko nag. bi nga wax ak yow. bi may wax ak yow. fa inni kallamtuka. fa inni kallamtuka. te bayni wa baynaka. te bayni wa baynaka. sab'una alfa xijaab. sab'una alfa xijaab. te inna li ibaadan. te inna li ibaadan. uxriju fi axiri zaman. uxriju fi axiri zaman. ukrimuhum bi shahri ramadan. wa ukrimuhum bi shahri ramadan. ana. ana akunu aqrabu ilayhi minka. minka. mujj jamono. nee mu ne ko mujj jamono. ci xeetu Muhammad. ci xeetu Muhammad. danaa leen terale weeru ñox weeru koor. danaa leen terale weeru ñox weeru koor. ñoo ñaama la gën a jege. ñoo ñaama la gën a jege. ndax fa inni. ndax fa inni. kallamtuka. kallamtuka te bayni wa baynaka. te bayni wa baynaka. saboon alfa xijaab. saboon alfa xijaab. mais wax ak yow. bi ma wax ak yow ci jabalu tuur. jabal ci jabalu tuur. man yàlla. man yàlla juróom ñaar fukki junni kiiraay. juróom ñaar fukki junni kiiraay. dox na sama diggante yow. dox na sama diggante yow. te Isa saamat. te Isa saamat. ummatu Muhammad. ummatu Muhammad. wa bayadat. wa bayadat. shifahuhum. shifahuhum. wasfarat. wasfarat. alwanuhum. alwanuhum. arfau. arfau. tilka alxujuba. tilka alxujuba. waxtal iftaar. ne waxtal iftaar. xeetu Muhammad. ne xeetu Muhammad. ci woor ba jant bi so. ku ci woor ba jant bi so. fënd. fënd. gémmiñ gi. gémmiñ gi weex tàll. weex tàll. kanam gi fënd. kanam gi fënd. ngir xiif. ngir xiif juróom-ñaar fukki junni kira yëpp. juróom-ñaar fukki junni kira yëpp. danaa ko muri. danaa ko muri danaa kookee. danaa kookee lu mu ma ñaan ma may ko. lu mu ma ñaan ma may ko. ñoo ñaaba la gën a jege. ñoo ñaaba la gën a jege. te kat. nee te kat. ana nag. ana. ak sii bihim. ak sii bihim. maa leen di fay. maa ndax mboolem la yàlla yi. yàlla ay yàllaay wax di. yàlla yi. mboolem yàlla yi. jëma diir mbagg. jëma diir mbagg. te dañuy fen. te dañuy fen. muy laata. muy laata ak osé. ak manaata. ak manaata te laata. saay saay si. ci allahu lañ ko ko xare. manaata. ci mën naanu. ci ci azizu. yàlla yooyu. ñu ngi koy jaamu. ñu ngi koy jaamu. di jaamu jant bi. di jaamu jant bi. di jaamu weer wi. di jaamu weer wi. laa tasjudoo. laa tasjudoo. li shams. li shams. wala lil qamar. wala lil qamar. wasjudoo lillahi. alladi. alladi xalaqahunna. xalaqahunna. in kuntum iyaahu taabudun. in kuntum iyaahu taabudun. bu leen jaamu jant. bu leen jaamu jant. bu leen jaamu weer. bu leen jaamu weer waaye ki bind jant ak weer. waaye ki bind jant ak weer. jaamu leen leen. jaamu leen leen. yàlla nag nee na. yàlla nag nee na. seen jaamu yooyu yëpp. seen jaamu yooyu yëpp. daawuñu ci boole weer. daawuñu ci boole weer. woor woor maa ngi wooral laata. maa ngi wooral laata. wala Ousseyn. wala Ousseyn. wala Manaata. wala Manaata wala jant bi. wala jant bi déedéet. déedéet. woor man dong man nañ ko jagale. nee woor man dong man nañ ko jagale. kon nag asawmu lii. kon nag asawmu lii. wa ana aji bi. wa ana aji bi. kon woo wee woor. kon woor man dong maa ko moom. man dong maa ko moom man saa bopp it. man saa bopp maa koy fay. maa koy fay. weeru koor jot. weeru koor jot amoo ngaan. amoo ngaan ba jant bi so. ba jant bi so ñu la wooral. ñu la wooral nga bañ. nga bañ. sariya ana dagg sa gaaw. sariya ana dagg sa baat baat aw fii rek. nee aw moo gën a gàtt. nee moo gën a gàtt. ci téere fuqaaw yi. ci téere fuqaaw moom sax indi ko faf. moom sax indi ko faf. yow nag ngay koo xam ni. yow nag ngay koo xam ni. bu weer jotee. bu weer jotee. lu xale tuuti tuuti. lu xale tuuti ni ma gëmee. xoolaloo bi ni ma gëmee. ak ñoom mbay donde ñi. ak ñoom mbay donde ñi. ku ma ci woo ci ruq. koo ci woo ci ruq. ne la may naa la des ci koor gi. ne may naa la li des ci koor boo mënee waawit. boo mënee waawit. booy làqu di woor. man ngeen fay fekk nit nga def ko dof. fekk nit nga def ko dof. ku ne mën na ko. ku ne mën na ko. fekk nit. fekk nit nga niteel ko. nga niteel ko ba boo ko bëggee def dof. ba boo ko bëggee def dof. mu wàcc la ya. loolaa yëf ya. sa maam dafa ni. sa maam daf ni. lu yàlla wax ci alxuraan. lu yàlla wax ci alxuraan. wax naa ko ngeen dégg. wax naa ko ngeen dégg. jëfe ko ngeen gis. jëfe ko ngeen gis. lu Muhammad wax ci sunna. lu Muhammad wax ci sunna. wax naa ko ngeen dégg. wax naa ko ngeen dégg. jëfe naa ko ngeen gis. jëfe naa ko ngeen gis. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Cheikh Ahmed Tidiane lu wax ci tariixaam bi. wax naa ko ngeen dégg. wax naa ko ngeen dégg. jëfe naa ko ngeen gis. jëfe naa ko ngeen gis. soo ëllëgee nag. soo ëllëgee su ma indee leneen lu wuteeg yii. ma indee leneen lu wuteeg lii. bàyyi leen ma fa. bàyyi leen ma fa te ñaanal ma yàlla. te ñaanal ma yàlla te sax ci li ngeen sax. te sax ci li ngeen sax. loolu mooy yëf ya. nee na loolu mooy yëf ya. mbay dondee ngii. dara. dara sama commande koor gi. sama commande koor gi. ni ko may naa la ko. ni ko géej gi naa la ko. su ma ne waaw si. su ma nee waaw buy làq di julli. buy làq di julli. buy làq di woor. buy làq di woor. te du ca yi ngeen di xeewaay. waaw yi ngeen di xeewaay. parce que sunu waa ji dafa ñëw rek. moo sunu waa ji dafa ñëw rek. <laughs> di may julli di may julli. <laughs> ak i koor ak i koor. te da ngay wax ni. nee te damay wax ni. bépp sëriñ bu la ni bul jaamu yàlla. bépp sëriñ bu la ni bul jaamu yàlla. dinaa la dugal aljana. dinaa la dugal aljana. boo amee yet. boo amee yet dóoral. dóoral. boo amee mbëkk. boo amee mbëkk. mbëkkal. mbëkkal bu dee kurfañ. bu dee kurfañ kurfañal. kurfañal ma leen 100 mètres gi ci Ndakaaru. ma leen 100 mètres gi ci Ndakaaru. bis bu nëb sëriñ. bis bu nëb sëriñ. romb taalibe. romb taalibe ñu tëj ko kaso. ñu tëj ko kaso. te tëjee ko ca yóbbu. te tëjee ko ca yóbbu. to def ca du ca man dara du ca man dara cent mètres gii nag cent mètres gii nag ci Ndakaaru ci Ndakaaru ku muy të ku muy wax te mu faatoo te Ibrahima ba mu faatoo faat ñii ne ñeent. ñii ne ñeent. waaye daal ci ndaw la faatu. waaye daal ci ndaw la faatu. yàlla. yàlla doomu Muhammad bu ma am. doomu Muhammad bu ma am. muy jigéen. muy jigéen mu dund. mu dund bu dee góor. bu dee balaa jot mag. balaa jot mu rey ko. mu pour bañ mu mel ni baayam. pour bañ ndax jeex na. xaatimu nabii la. xaatimu nabii la imaamul mursaliin. imaamul mursaliin te doom. te doom bu bu màggee doonu baayam. bu màggee doonu baayam. te Muhammad kenn du ko doon. te kon te Muhammad kenn du ko doon. ba mu koy suul. nee ba mu koy suul. saxaaba yëpp ànd. saxaaba yëpp ànd. ñi gas di suul. ñi gas di suul. ñaari at ak genn wàll. ñaari at ak genn wàll. ñii ni ñetti at. ñii ni ñetti at. Sidna Ousmane. Sidna Ousmane. ni Muhammad. ni Muhammad. dafa mel damaa gis ay taataa. dafa dafa mel damaa gis ay ndox. ay taataayu ndox. mel ni rangooñ. mel ni rangooñ. Muhammad ni ko man xam nga ni. Muhammad ni ko man xam nga amatuma naqar. amatuma na sama xol. yàlla sama xol. raxas ko ci ko ci maa u tasniim. siis ak. siis ak waaye waaye njureel dafa foor. wante yow Ibrahima nag. ni ko yow Ibrahima nag. Mouhamad tey wax doom ji kat. Mouhamad tey wax doom ji kat. yow ma ca malaaka mbàmmeel bi. boo dajee malaaka mbàmmeel bi. mu nekk rek wala kiir. mu nekk rek al islaamu. al diini. diini. déggal. al islaamu. al islaamu. diini. diini. Muhammadu rasulullahi. Muhammadu rasulullahi. waalidi. waalidi. bu la laajee. bu la laajee nee na lislaam. nee na nee na lislaam. mooy sama. mooy sama. diini. diini. Muhammad mooy sama baay. Muhammad mooy sama baay. Omar daal di yuux. nee na Omar daal di yuux. ca kaw. ca kaw. ñu ne ko looy jooy. ñu ne ko looy jooy. mu ne kii di doomi Muhammad. mu ne kii di doomi Muhammad. kenn toggagu ko jëf. kenn toggagu ko jëf. Muhammad di ko sàkk. Muhammad di ko sàkk. ñun ñu togg ñu jëf. ñun ñu togg ñu jëf. fekk dana bàkkaar. fekk dana bàkkaar. te xamul bu nu dee. te xamul bu nu dee. Muhammad dana nu saam du nu sax. Muhammad dina nu sax wala du nu sax. looloo ma tax a jooy. looloo ma tax a jooy. ah ah sëg yëpp la àndandoo di yóq. ah ah sëg yëpp àndandoo nag di yóq. malakul malakul mawti nee malakul malakul mawti mun nakir ak wa nakiir mun nakir ak wa nakiir yow Ibrahima yow Ibrahima buñ la laajee buñ la laajee nee leen nee leen allahu allahu rabbi wal islaamu wal islaamu diini muhammadu rasulullah walidi walidi yàlla mooy sama borom yàlla mooy sama borom islaam mooy sama diine islaam mooy sama diine muhammad muhammad mooy sama baay mooy sama baay Omar Jooy nee Omar Jooy ni kii amagul bàkkaar ni kii amagul bàkkaar Mouhamad jur ko. Mouhamad jur ko. di ko sax. di ko sax lu war a wax lu wax malaaka. lu war a wax malaaka. ñun ñu am bàkkaar. ñun ñu am bàkkaar. te xamuñu. ëllëg te xamuñu ëllëg. moo ñu jëleem du ñu jëlee. moo ñu jëleem du ñu jëlee. ñëpp bokk yuuxu nag. ñëpp bokk yuuxu nag. yàlla wàcce laaya ja. yàlla wàcce laaya ja. yusabitu llah. yusabitu llah. alladina amanu. alladina amanu. bil xawli saabit. bil xawli saabit. fil xayaati dunya. fil xayaati dunya. noppi leen. noppi leen. ëllëg koo bëgg a sawee. ëllëg koo bëgg a sawee. yàlla jox sax danaa la ko sax. naa lay woo xam ni. lay woo xam ni moom ngay laaj yi. boo dee dugg aljana. boo dee dugg aljana. kon. dama wax ni. dama wax ni. bépp sëñ bu la bul jaamu yàlla. bépp sëñ bu la ni bul jaamu yàlla. naa dugal aljana. dinaa la dugal aljana. demee ko jot. dawal loo jëkk a jot ko moo tax xalifa. moo tax xalifa. première ndénkaaneem ci njabootam. première ndénkaaneem ci njabootam. ba bi mu feebaree. ba bi mu feebaree. Souleymane Ndaw bu Cakalaan. Souleymane Ndaw bu Cakalaan. bisub alxames. bisub alxames. ni tey. ni tey moo ñëw siyaar si. moo ñëw siyaar ca yoor yoor. ca yoor yoor boobu mi ngi mu ngi tëdd Alaaji Mbaay ne ci diggante bi. Alaaji Mbaay ne may wax. may wax mu jottali. muy jottali mu ne ma aha. mu ne ma aha. lu waxtaanu gàtt gàtt. lu waxtaanu gàtt gàtt. sama juróom yi. sama juróom yi bu manqué bu manqué mooy lan mooy lan suñu diine suñu diine bi Ibrahima Diop kàbbaree léegi bi Ibrahima Diop kàbbaree léegi ñëpp a jóg kàbbar ñëpp a jóg kàbbar kenn tiimul kenn tiimul te ku nekk ci koor nga ne te ku nekk ci koor nga ne suñu diine suñu diine te te man laqiya Allah ne man laqiya Allah wa mudayya'un wa huwa mudayya'un li salaati li salaati lam ya'ba illah lam ya'ba illah bi shay'in min hasanati min hasanati yonent bi nee na yàlla nee na. yonent bi nee yàlla nee na. ku dajeeg man. ku dajeeg benn julli. bàyyi benn de. xanaa leneen waaye faale tuma loo def. waaye faale tuma loo def. ak sunu tariqa. rey. yal nañ ci yàlla rey. coow li matu ko. coow li matu ko. saamaam dañ ko ni. saamaam dañ ko ni. waxal. waxal coow na. ku ne nee maay waaja. ku ne nee a wax. ku ne ngi wax. muy jotagul. mu ni jotagul. saw fa taraa. saw fa taraa. idan jëlal xubaaru. idan jëlal xubaaru. afarasun. afarasun taxtaka. taxtaka am ximaaru. am ximaaru coow limatu ko. coow limatu ko boo lëggee. boo lëggee ku war ma naaru góor. ku war naaru góor da nga xam. da nga xam ku war mbaam. ku war mbaam da nga xam. da nga xam ku kennatu. ku kennatu da nga xam. da nga xam. mu ni sunu tariixa. mu ni sunu tariixa. xalifa nag ni moom. xalifa nag ni moom. fala tara ahadan. fala tara ahadan. min ahlihi abadan. min ahlihi abadan. illa wa simaahu. illa wa simaahu. fi xusnin. fi xusnin wa tazyin. wa tazyin lu tax. lu tax humul kiraamu. humul kiraamu. wa ashaabu rasul. wa ashaabu rasul. wa arbaabul qabuul. wa arbaabul qabuul. wa ahlu diafi. wa ahlu wa nuun. wa nuun. fala tara. fala tara. déet ngay gis. déet ngay gis. ahadan kenn. ahadan kenn min ahli yi. min ahli yi ci ñooy cheikh. ñu ne kii taaliba cheikh la. kii taaliba cheikh la. loo koy xamal. loo koy xamal illaa wa siimaaw. illaa wa siimaaw. dara mandargama. dara mandargama. fii xusnin. fii xusnin wa tazyin. wa tazyin bu rafetee. bu rafetee yaañ. yaañ civilisé. civilisé sol rafet. sol rafet taaliba cheikh la. bu ñaawee. bu ñaawee tilim. tilim soli sagara. soli sagara du taaliba cheikh. du taaliba cheikh. ñu ne ko xalifa ah sax nga wax loolu ñu ne ko xalifa lu tax nga wax loolu mu ne humul kiraam mu ne humul kiraam hum ñoom hum ñoom al kiraam ñooy way tedd al kiraam ñooy way tedd tedd gu mel nan tedd gu mel nan mu ne inna akramakum ne inna akramakum inda allahi atqaakum ku la gën a ragal yàlla ne ku la gën a ragal moo la gën a tedd ci yàlla koo xam ni du ñëwee du faat waxtu mukk du faat waxtu mukk du ñëwee bañ a wóor mukk du ñëwee bañ a wóor mukk lu neexu yàlla sori na ko lu neexu yàlla sori na ko humul kiraam ne humul kiraam ñooy way tedd ña. ñee ñooy way tedd ña. waa saabu rasul. waa saabu rasul ñooy saabay Muhammad. ñooy saabay Muhammad. ndax Cheikh. ndax maama moo ko warlu. maama moo ko warlu asaabu ko. asaabu ko asaabi. asaabi telmisu ko telmisi telmisi. waa rabul xabool. a wa ab babul xabool. ñoo waram nangu ndax taxali la Maodo wax. ndax taxali la Maodo. soo ko def taxali. soo ko def taxali. boo demee ci sardon ba. boo demee ci sar sardon takrib ak këriñ. takrib ak këriñ. ak diw. ak diw boo solee perkaal day ñuul. boo solee perkaal day ñuul. yàlla bala nga koo ñaan da nga set. yàlla bala nga koo ñaan da nga ragal yàlla set. ragal yàlla set. wa arbaabul xabool. nee wa arbaabul xabool. loolu diye si kat. wa aalu diye si kat. ñooy waroon ful. ñooy waroon ful.